Loroy Comedy Musical All my Abba no the music like that I'm gonna go to chop Kai Open the music like that The del masing gom dat sama um. kari Open the music like that Run for new fact that new Anytime that dan you rap Come in the music like you masak uba We ready We ready Adanyo dof te do new wear We ready We ready Ada dof te do new wear We ready We ready Adanyo dof te do new We ready wéeri ñun dañoo dof te duñu wéer asina David no stress lañu dundu hey ya asina David foo ñu fekk dañuy happy dañuy ree asina David no stress lañu dundu hey ya asina David foo ñu fekk dañuy happy dañuy ree comédie comédie looloy comédie musicale comédie comédie looloy comédie musicale comédie comédie looloy comédie musicale comédie comédie looloy comédie musicale comédie comedy, comedy, comedy, comedy, comedy, comedy, comedy, comedy, comedy, comedy, comedy, Twinsie boy, what's up? G for Universal. Twinsie boy. Eh, Twenty boy, Jeno, Mena, Zem Alvina David, no stress la ñuy dundu eh yeah Alvina David, foo ñu fekk dañuy happy dañuy ree Alvina David, eh. no stress la ñuy dundu eh yeah Alvina David, foo ñu fekk dañuy happy dañuy ree Comédie, comédie, looloy comédie musicale Comédie, comédie, looloy comédie musicale Comédie, comédie, looloy comédie musicale Comédie, comédie, looloy comédie musicale ejal bi jalaa ñëw ejal bi jalaa ñëw ejal bi jalaa ñëw loolooy jal bi jalaa ñëw hee loolambe fi jaar joxe dërëm nga ni ma wan fi jaar joxe dërëm nga ni ma wan na loolambe ko fi jaar joxe dërëm yow kaa ñu fa wee taxaw xale wër dërëm comédie comédie li comedy comédie musicale comédie comédie loolooy comédie musicale comédie comédie comedy mooy comédie musicale comédie comédie loolooy comédie musicale wol ma aba no stress comédie music lay def am na nga jaw ko cóog comédie musique lay def dëndal ma singom am comédie musique lay def am na sama kari. comédie music lay def ñu foo ñu fekk mer anytime da dañu reer comédie music. dégg lañu def dajal ma sax ba mel ni seef wéradi wéradi dañoo dof te duñu wér wéradi wéradi ñun dañoo dof te duñu wér wéradi wéradi dañoo dof te duñu wér wéradi ready You Nunca yo poste do you ready Azina David No stress when you do hey yeah Azina David When you fake then you happy then you ready Azina David No stress when you do hey yeah Azina David When you fake then you happy then you ready Comedy Comedy Lolo comedy musical Comedy Comedy Lolo comedy musical Comedy Comedy waa asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa adduna asalaamaaleykum waa diaspora bi ah comme ni ko daal defee xam naa ne moom namoon ngeen ñu te ñu ngi nii ñëw nañu waaw. waaw seen mbokk Yoff TV gannaaw na ngeen namoon ngeen Alvin ak David. Mhm. ñoo ngi nii tey ñëwaat nañ ñaata at ñu ngi gëj def émission ñun xewoon nañ de. ay waay xew. ay waay xew xew a ngi nii xew. xew moo demee nii. ay waay waaw eh, yéen waa TikTok waa Instagram YouTube Facebook leen a xewil waate koo leen da ngay nuyoo ba pare bàyyi ma nuyoo wuy ma bàyyi bàyyi ma ma nuyoo nuyoo ah waa assalamualaikum waa Sénégal asalaamaaleykum diaspora bi di nuyu suñu tonton Sias di nuyu waa Rishi di nuyu ñëpp nyep maa ngi nuyu ñëpp baal ma kenn néew la Rishi Rishi kenn néew la Rishi naan Rishi Rishi di nuyu waa Rishi di wax ne nan moon naa leen nag billaahi mu ne naan la moon xoolal TikTok baa ngi waa TikTok yee ñoom yëpp bi TikTok bi xoolal TikTok bi xoolal di ñu kanamam gu bizarre gi xaw ma. kanam sama gaay la sama xarit la. am na kanam yoo xamante ne ñu ngi lay kontaanee a baax yow mii fas yéene jàkkaarloo ñun fii si en direct si TikTok. Hmm. ñu ngi lay a a a di leen bégal di leen kontaanee. wax dëgg kanam yoo xamante ne kanam kawsu leen yow sa kanam gi kenn xamul kanam lu mu doon nii. kanam dama bëgg léegi nga kanam yi façon kanam yi ñoo xeewi parce que mii yaa di nga ree ingere yaami ne man parce que pas pasoo kanam yi laa xam mooy kanam yi lan waaw léegi ñu ñëw fii tey dañoo am tey dañoo am temb am es non non non temb temb lan extraordinaire extra extra extra extraordinaire pour boo koy wax da nga naan extra extra rar extra rar am temb extra ordinaire wallaay man di xam naa ne yéen dafa soo kanam yi sax si leen bokk. waaw di kontaanee gars yi bu baax baax a baax di leen wan namoon ngeen ñu vraiment ñu ngi nii. c'est moi Alvin c'est moi Alvin. ndeysaan Alvin da nga xew. waaw ñu leen di wan nag ñu ngi nii. tey li ñu sol vraiment maa déggee moo fi jaar comme ni fi daan jaaree rek moom chaque jour yi lay def. yow tey doo ma la laa naan. tey la nga naan. café bu dëgër. dose bi ñaar laa def def benn bekku suukar këppi bu dëgër laa naan tey. te xaw nga te gisoo dama ànd ak cawarte boo xamante na <laughs> nga sonn na nga yow kay yow kay yow kay léegi ah, kii resi. Eh, si seetoon ñu ñu ah, ñoo moom sañse. wax fa dëgg yàlla sañse suñu yëf la. ñun kenn du kenn du sañse suñu kanam kenn du sañse suñu kanam ndax sañ-sañun ñoo ko moom. tiktok bi kii bu eh. ngeen dee. yaa ngeen dee. yaa ngeen dee. si c'est bon rési ñu dugg sañ suñu yëf la. waaw ñu sañ suñu yëf la ñu wane. ñu naan fii léegi sur chaîne. Mm-hmm. yéen kaay leen seetaan fi ma génn. kii jéem bokkul ak kii ka man. barki Cheikh. sañse sama yëf la. ku ma ko seexal duuma la. tey moo ko dafa ne ci man. Ah. dama ko juddu waale. waataame taame. waataame taame taame taame. waataame taame. waataame taame taame taame taame. xoolal ni ma mel. yaa ngi nuyu sëy xoolal ni ma sañ sañ. yaa ngi nuyu nga ni ma mel. Eh, dafa daal man daal. léegi man daal man daal macha allah. xam nga sa problème da ngay contre temps bàyyi contre temps bi. Eh, yow mënoo way de. waaw ah, waay waay yow da nga laakaaj yooyu. Eh, mënoo way waay waay ko waay. ma kenn waayal ati ma dama la déglu. attentivement moralement exclusivement. mentalement noonu. yéen kaa leen seetaan fi ma génn. kii jéem bokkul ak kii ko man. barki seex sañ sa sama yëf. ay ku mag a seqal buule na. da ngaa dégg da ngaa dégg. seka seka man li tax ma kontaan tamit. ku ma ko seqal dama lay bule. seka man li tax ma kontaan ku ma ko seqal duma la mais ñun kuñ ko seqal dañ lay bule. waaw ndax parce que sañ sa ñun moo ko moom ñun ñun avant. abaa li muy sañse abaa day sañse lu rëy te abaa nee moom bu sañsee moom bu sañsee maanaam sañse gi du du du du du du nekk di sañse nii sañ ne moom bu sañsee ba jekk abaa foo jëm ne la may fubbali man dama basket yi jiwoon te ñun dañoo basket yi jiwoon dañuy doog a ñëw boo ñu xoolee dina xam ne dañoo xam man damaa Kida basket yi woon. Eh, yow fan nga fan nga pointé yow. bala nga rapproché la gisoo sama capitaine bi. waaw wuyu ma wuyu ma capitaine bi. wuyu ma mën naa football waaye déglu rek li ma laa waaye léegi. Cissé Bo. Cissé Bo Assane. léegi dañu ne wuyu ñam ñam xin. Mm, mm, kenn kenn kenn ñamay ñamay ko. man maay way way moom man maay way way moom man maay way samay way yow bu may way samay way aawoo ma rek dégg parce que temps yii damaa xaw a giwle kafe gi mën naa ëpp ni ma doole. <laughs> kay tey xaw ngaa dee. xam nga man sama neer ya taxaw. vraiment kay sa neer bu taxaw ba suñu wax si yow kay yow yaa ngi dee. muy ñambat ñambat. kii kii ak kii ak. ay boobu xewi na boobu xewi na boobu xewi na boobu xewi na. boobu xewi na. ban moo xew. muy ñambat ñambat kii kii kii. boobu xewi na boobu xewi na. Ken Kylen seetaan fi mu génn DJ mbokk la ki ko man barke Cheikh sañse sama yëf la ku ma ko sekkal du ma la tayuma ko dafa ne ci man dama ko judduwaale waa tamit tamit waa tamit tamit tamit tamit waa tamit tamit waa tamit tamit tamit tamit tamit xoolal ni ma mel xoolal ni ma mel gis nga ni ma mel macha allah xoolal ni ma mel. yaa ngi mese xoolal ni ma mel est-ce que yaa ngi mese gis nga ni ma mel. man daal man daal macha allah. man daal man daal macha allah macha allah. man daal man daal macha allah. sama seetu naxuma. sama selfie baax na. lu dul sañ se bëgguma. te fi ma génn nooy na. mungi Mungkin akaru karu su Kulari dan koi harmonize babonku Yau se fita koi def Bari feeling chillabab Dafa yoku baile time doci time Watami tami Watami tami tami tami Watami tami Watami tami tami tami tami Hola ni ya Yani mi Follow me, my man. Please need Mandal, mandal, mashallah. Follow me, mama. Yani mese. Follow me, my man. Yani mese. Mandal, mandal, mashallah. Mandal, mandal, mashallah. sañse bi dañ ko wane ba instant bi. waaw ñun gis nga boo xoolee vidéo bi si ginnaaw rek xam nañu sañse rek la ñuy def. sañse man sañse sañse suñu yëf la. ah waaw waaw waaw dafa dafa. boo xoolee vidéo bi si ginnaaw xam nañu sañse suñu yëf la duñ ko bokk ak kenn. waaw sañse ñun ñoo ko moom ñun. lu tax su ma sañse ngay si su waay. biso man dama wala sama tax sumay way fa may prononcer way way gisal san sanse ngay si su way gisal yo ya, wala wi gisal gisal sal gisal na lu tax san sanse ngay si su way man man ko wala mi man dama lu tax san sanse ngay si su way gisal wi gisal gisal sal gisal na lu tax san sanse ngay si su way gisal wiya gisal gisal wiya gisal naan sañse suñu yëf la gisal ñun ñoo ko moom nga naan sañse suñu yëf la gisal ñun ñoo ko moom nga naan sañse suñu yëf la gisal ñun ñoo ko moom ta bàyyi mu seetlu li single bu bees ta buñ ko waneegul fe ka ko may problème bi man sama boo fi wane boo fi jéemee way ay way nii nii nii gaa lañ lay critiquer mais c'est que nga la may problème bi nag dañuy waxtaan nag dañuy waxtaan déglu ma dañuy sérieux nag dañuy sérieux dañuy sérieux gis nga waykat yi ñoo gën a seytaane ay seytaane lañ parce que nga la ma tañu seytaane hmm.

waaye man Oscar gi lan way fépp. yow Bas Thioum way na ma Bas Thioum way na ma Akhlou Brick way na ma jëm ne Oscar rapport individuel man lañ way Bas Thioum na Oscar Oscar fee ci riir yi kaay buy caaraara kon nga war xale laa mën a def mën a ci riir ak caaraara man dama man loolu léegi xam nga fa la ñuy dugg ci gàmbale yi dugg nangul ma loolu pare nangul ma ko nangul naa la ka nangul naa la léegi dama bëgg ñu def ambiance waaw dama bëgg ndax temps wayo gën nañu ci nañoo ñu ambiance. légui ambiance yi ba. xam nga ba laa bëgg mu dugal ba ambiance. Hmm. biriket bi. non xaar xaaral xaaral. boobu dafa tanas oh boobu a ngi toj dëkk yi amal on nak ko. dafa ne dafa ne. Oh. c'est que am nga la moo tax foofu fa gaaw a dugg parce que instant bi ni son yi dañ duggalante. ndeysaan. maanaam si biir duggalante boobu ñu duggalante maanaam euh, kii bastum dafa ñëw ne briquet bi léegi kenn séeréer gémma séeréer yaa bu ngeen ki ki yaa ma jëndal micro ak la lan wax gémmiñ yaatu dëkk dana ñëw ne def nii day ngang rek moom moom day ngang rek way day ngang rek di way waa si di ba bon gémmiñ day rëy mu ci affaire bi daan séeréer séeréer séeréer non tey balaa ñu egg séeréer gi dañuy daan daw euh, si c'est bon résine ñu dem xool ji ko nga xamante ne moo di na boo nangu woon ne yàllaay dogal yàlla dafa dogal moo tax ñu ñëw taxaw fi si bi yàlla dogal ñu dem nekk ji ay artistes yàlla dogal ñuy tourné ji fu ne kon si c'est bon ñu dem xool ji boo xamee ne yàllaay dogal ñu ñëw xool lan la yàlla dogal si ñun ñaar ndax yàlla dogal na ñun ñaar ñu nekk. balaa ñu ñëw si yàlla dogal bi nan wax si actualité bi xew léegi ban actualité am na bu xew. ban moo xew le motif le motif waaye sa pës yi am na bës bii nii bébé yaa ma ah, am naa la pour la boobu am na bës bébé xari daa fooyu iri waaye bi daa fooyu soo boobu am bës parce que gars yi moom la motif moo xew <laughs> du doom góor sama ñaari doomu ndey yooyu sama ñaari doomu ndey dañ ànd lu bës Tengok kami tak kami baik tapi nenek si udu jami borong. Eh, bus anton. Bus bus saya ke akan makan. Anton mana udu lagi sabu segmen dan di set susan di segmen ruang sengal beli lagi sabu. Ada kerja ke perlu bos. Bersama segera saja. Ya, nendang karek magi nyuli mana ke sebelah dulu. Lagi tanya har. Lagi tanya dalam kali anggur. gannaaw yëpp ma kiyeewul ma kiyeewul. Eh, lala sa fond de teint. Eh, si c'est bon Régis. yooyu Assane. si c'est bon ma kiyeewul ma kiyeewul. lala sa fond de teint. yéen du ngeen li dañ mujjee sinab seen léegi gannaaw ñun dañ waaye du ngeen li da mujj koo sinab. kon loolu wax ji jeex. ma kiyeewul ma kiyeewul. ndax ñoom ñoo fi génne waaye du ngeen lii. te ñoom sinab lañ lii. Bibingan sinem si si dani TikTok li, si si di nan TikTok li, TikTok nang ka sinem nan TikTok nan ka sinem nan ka. Ñom ñaar kay ku ka sinem nan ka ñi ñoo ñi ñoo kay wala nak dañuy goré ñu ñaar parce que fi la am nit oté né yi ñaar kon dudu ngor. Même goré rek deglu ma kon nam depp do ko. Dem day. Bu ma la ci sama mëntu bi dafa 77 773. 50 kay. Fi ni ni nak Pasa ka, fii la nit oote ne seex yéen ñaar kon duudu ak nguur comme te ñoom doon neen duudu ak nguur ba mu ndeysaan doomu ndey moo foor duudoo njëkk a def après nguur kase kase léegi la def njëkk la def. yaa ngi waay waay njëkk la def waaye. bëri na doo njëkk la man dama ne afta dinaa wane sama bopp dama afta laa afta. njëkk la def rek njëkk la def parce que 717 23 secondes man boo ci yàlla xam na ni ku oote si numéro boobu noonu bu subaa di nga gis Abbas parce que man saa ko dafa doy waar di koy def boo defee tey ma def suba. non non. kon boo defee si midi 10 ma def si 11h10. doo yaa ma ñàkk a def kon. boo defee si midi 10 laa. nga def 11 yaa ma ñàkk a def uy ma. donc 11h10 laa. waaw 11h10 laa. boo ku nekk a ak doomu nday doomu nday ku nekk a def. Ah, waa kaay kaay kaay wuyu ma gis nga non defar rek xam naa ne. non def rek defar rek man su ma nag yow sax doomu ndey dese na de. xarit su ma defaree xarit. kii nu mu tudd Duudu. démb oo na ma téléphone dama la ko fàtte wax Duudu moom ma oo téléphone na ma dimbali leen ma te yàlla tax rek. bu ko waa TikTok yeeg. bu ko waa TikTok yeeg mais waa TikTok yi waa TikTok yi lu ñu ñoom nañ TikTok Snap Facebook Instagram YouTube. ñom lepp lañ def amé wa tiktok wa tiktok ñoo ñu ko ñu ñu ko siwal affaire bi dé wa tiktok ñom de tiktok nañ man moom dinaa ba ñàkk suma nday dinaa doon ab doomu nday man faa ma doon ab doomu nday man nee la défa si midi 10 défa si midi 10 ma ci 1h10 eh midi da dé da da xamoo ni daf ko midi 10 ma def ko si une heure dix tey def léegi ni nga wax way yow gaawal gaawal gaawal eh xam ñu 77 77 23 59 oote leen si numéro boobu woote leen si léegi ma def ba ñàkk su man day ma def kalaa la. da ngeen di woote da ngeen di woote. taxaw ma def ko fi nit ñi. Alvin dafa pare pour bi da jékki saa da nga jékki saa nii bi dafa am ay ay ay yu ñëw. kat ngay oo booy wane. ah ah ci ah, ma oo kenn man oo ma kenn. Oya Jati. Yóò yọ ọwọ́ ní. Yóò wọ alákàm. Wane mi do ñu ni rek wane. Koy wo. Bu am bës. Xam nga wane mi nan ngay def. Wane mi xam nga nan ngay def. Déglu ma rek ma wane. Wane mi xam nga nan ngay def. Yow. Gisoo ni ngay def nii rek nga jékki saare gis ka. Yow da nga ne fu ma wane ka rek nga bëgg a yow. Fu ma wane ka rek nga bëgg. Yow defal ndànk rek dinaa ko wane lii waaw wane bi ñu war a wane. wane bi bi ñu war a wane ku ko bëgg a gis da ngay def 28 628 04 56 ou 33 841 21 42. waaw ma la mu jaaxal si yow. mooy numéro service client bi yow ni nga koy jàppee di ko tuubi sa mental yi ba ba pare ba yow sa gis sa accessoire yi dama commencé jàpp ay numéro moo tax numéro yi dafa xaw a dafa xaw a liggéey si yow parce que sa accessoire yi numéro yi ñu jàpp moo bari déglu ma ma lay wax accessoire da ngay jéem a dindi yenn yenn numéro yi dire que ñun jël niveau service client nga koy wax waxal ko si client bi bi 628 ah bu xool waxal waxal numéro xaar xaar xaar waxal numéro bi maa ngi koy xaar ni maa ngi koy xaar tamit 056 55 sa mentalité yi ñu jàpp si numéro moo bari léegi wane bi mi ngi ñëw si wane dañuy dugg Russie ñu indi ñu ñaari ñaari doomu ndey ñaari doomu ndey après man bu may ñëwaat Russie damay indaale wane bi <laughs> wane bi waaw waaw wane bi ñu war a wane kay foog nga wane ko <laughs> foog nga wane ko wane ko wane ma oo kenn dama <laughs> la su ma ko wane dugg Russie ñu indi ñaari doomu ndey ñetteelu doomu ndey bi mu mën ma ñëw dafa loolu koy oo bul oo kenn dafa loolu ayu lay la la wax leen téere séere yaa ma gënal ñi ñee gënal ma ñëwoo ay dem na xoo taxaw yow di tur ebaay doxal jaamu am na ñu ay woon naan loo na bee boo ñu waay yaa ma gënal ñi ñee gënal ma ñëwoo waaw ay dem na xoo taxaw mais eh dama ko fàtte si biir bi. lan ngay wane. dama ko fàtte si biir. non non non non lan ngay wane. dama ko fàtte si biir. lan nga war a wane. yow ab zel nga ma indil moom ngay wane de. non daf ma toppaale rek. daf ma toppaale. wane sa affaire bi laa la nga wane sa affaire bi. dama ko fàtte si biir wane que léegi nii ma wane. dama ko fàtte si biir. ah affaire bi nga fàtte si dama ko faté ci di nga dugg ji li jiwaat ko. non dama ko yow sama xaar bu bitti gi man naa c'est que xam nga la moy problème bi dama ko faté ci bi sérieux du caaxaan dama ko faté ci bi dina ko jëli légui li nga wane bi nga war a wane ka li li nga war a wane wane wane wane ka. dama ko faté ci biir. dama ko faté ci biir dina ko jëli. nek ci man instant bii dafa ci yow dafa mëni bari kay. ci ngeen ñu dara la ci gisul dara. Bisubadara man kay zel bi lagi ki sa ni gis ka man dama xam fu ma topé sax mais lagi ah dama nga zelu ah yalla dama nga zelu ji eh si c'est bon rési nga Ada ma dura am ngor andi ma dura am ngor nak wone bi mu wara wone mu war ka wone na parce bu wone bu fi wone bi li def andi ni la lay wone li nga ne li li li li amul buzz la wone li nekk fi fi dama ko fàtte si biir. naka waay. dama ko fàtte si bir ni do ko topp ba si mir wis bi di kasi bomba dama ko fàtte si bir ah waay na la ko bomba de tien dama ko fàtte si biir. dugali ko ci bir fa nga fekk yow. lii moo nan. li gel antiseptique. anti antiseptique. <laughs> ah dama ay. nga ne gel lan. gel antiseptique. anti lan. antiseptique. waxaata waxaata waxaata. Kan ci kaw. gel antiseptique bi waaye yow kenn du ma topp waaye bu ma bu ma xoos. waaw de waaw de waaw. gel antiseptique. antiseptique. nu ñu koy waxee yow loolu yëpp nu ñu koy waxee yow. nu ñu koy waaw yow nu ñu koy waxee yow. nu ñu koy waxee yow waaw waaw yow nu ñu koy waxee. Zane ni nga ko waxee waxaatal benn bi rek pour la dernière fois <laughs> pour la dernière ah, fois pour la dernière fois man nuñ koy waxee. waaw pour la dernière fois. nuñ ma la man xam lii ba énervé wax ka. wax ka ba énervé. Eh, yow Zane nuñ koy waxee. Zane nuñ koy waxee. Hmm, waxal rek waxal rek waxal rek. waxal rek man wax naa la ko mille fois. ah man de Zane laa si xam. Zane nga si xam. waaw doo eggale moo bi si topp. laa nga si xam. loolu rek laa xam yow de nuñ koy waxee. Zane <laughs> anticipé. kenn du ko nuyoo yow soo xeeti reetaane ngay reetaane neexul dara ay day am harmonie ree day neex gis nga ree yi neexul arsen antiseptique la dama delloo li man boo ne antiseptique man may bëgg a dee man seen ànd lan ma waay uy uy ma uy ma oui ma dañuy waxtaan nag man nag ba sa xet gaa gaa ñëwoon affaire wala bi mais mu jënaa doon antiseptique septique mooy lan septique mooy lan eh waxuñu lan loolu de lan la ñu wax waxuñu lan loolu de lan la wax lii la lii lan yow lii lan lii waaw lii lan la waaye yow ñuul nga bañ xamoo dara yow yow li ma ya, si mën a wax nii ma doon ko see waxaat ka nu ma ko waxaat. waxaat ka nag jàpp si ma ko waxaatee rek owee mu kumba. kumba waaw owee mu kumba owee mu kumba. xam nga lan la ñuy def sax lan la def da ngay dem dugg dugal lii yaa may dégg nga ñëw andi fi cadre duuru ak ngóor bi bi nga war a wane nii. wane wu ma de wane ma de man ñaake wu ma noonu fayda de ma de. moom. ah da ngay wéy dem damay daw kay waaw ne kay. am na solo da ngay wane da ngay wane da ngay wane. dañuy indi duudoom buur bi. dañuy indi duudoom buur bi waaw waaw wane rek. wane wane wane. dañuy indi duudoom buur bi waaw wane rek waaw. oui nii moom dañuy wane moom. waaye wane ma kaas itam wane wane. da ngay wane. si la ma si la ma si la ma kaw jëlee kaw gi mi leste ko bi. ruuru ruuru ruuru bi yéen si ma jël ko jël ko fi jël ko fi. sa doomu day mere na la mere na la bu góor bi nag laa ma bu góor bi mu demee kanam ko nawet gi. waaye mooy yaa ay. yaa ma la wooyee. su ma la wooyee sama wàll rek Sénégal bi laay def. lan la ñu gàttal. mi mel ni fas. lan la ñu gàttal mi mel ni fas bi la mar. ndax fas fas fas fas bu ñu gàttal noonu lay def. ndax waaw léegi. duuru bi ma kanam gu lewet gi. moom it bii la may def xanaa kanam xanaa ra ras li mu koy rasee ji bi ni mu koy rasee. Wah, wah asal maa ngi dugal góor ñaar ñuy xees dëkk bi instant bii nii ñoom ñaar xew de as. ñu ngi lay lancé fooratee. pare après ñu ñëwaat si ñoom ñaar. duuru Hey, hey, hey, woo. ala kom je rek de waaye waaye dafa naa ko ma lay lay duudu duudu duudu ma lay laaj duudu yow lan moo tax nga ne wuy yaay li non dakkan moo ko si wax ngóor wala duudu mooy rasamaan bi rasamaan bi mooy ngóor ba mooy war kàggu la sa sa vidéo mu dafa la wa ngóor yow wax nga ko say biir wax nee nga wuy yaay du ba tax nab ko ngeen tiktok si nab yow moom waxu malaat tiitaroo mag yi rek de mais yow sa kanam rek ma kii yow ne ndax yow moom sa iya. niñ ko tàllale rek raw na may këpp ñii ñii ñoo ñii ñoom rusloo ñu rusloo la waaw ji dañ ñin ñin def dama si kontaan nga naan maa lan dama ma kontaan si leen def yow noo si kontaane man ni ma si kontaane man ni ma si kontaane te lii di ngi rek la vite fait rek yow sa ak ko parce que bu fii rek nga wanee mandi gue lima lah, kubega kubega mawan lah, mawan lah, man mawan lah ngadis. What is ini mau lebih mewah? Wid wid sisa bintu zara kar singan sis. Dina gis. Dina gis for so kalau dama kakek wan ni, dama yo gis dama kakek wan ni di zeli bi di dama kakek. Dapa dama ling kakek ni, anam bi maling kakek ni, anam bodai ni. Pasal mana mana ni, mana mana ni, ma ini ni. Kan? Bul bul jel bul jel kompatu bul. Boy jel senyumnya. sinyum nyai. Tangan tangan lal Ah, foofu mu ko defee waaw ah. nga lawetal kanam gi doo ko wane mu nekk ñaari vidéo mais bu ko defee ba loo def yow defaral léegi nii ma defar léegi nii ah da nga def boo defee ma def njëkk la def rek yow yaa bés une semaine dara jaral ma ko ci àddina njëkk la defal mais c'est quand même problème xool xoolal ma xoolal ma xoolal ma xoolal ma kanam góor gi rek kanam góor gi dafa désolé wu ndeysaan innocent nga nag ndeysaan innocent la mais kii boobu kat eh du bandi du bandi la góor ak dana nek innocent waaw mais dañuy waxtaan dañuy waxtaan léegi dañuy waxtaan yow fekkee da nga faral góor du man ñun ñaañu laa faral de faral ba kontan, ma si kontaan man kontaan ma si nag kontaan parce que man dama kontaan parce que man dama kontaan yow man ngaa yor la yow ngóor tuuti nga trop mais yow li nga xëyee yow ngóor tuuti mais yow mais billahi li nga yow li nga duuru yow moom ngan nga trop melu na ah, nga duuru yow garaawul. Eh, mais yow yaa garaaw baal booy yi ngay xas dama ne ni ngay def dama mbëkk la fi ñu xeex déglu ma booy yi dañu dama si kontaan parce que man ma dama kontaan ba léegi laa jomul tax a kontaan. lan moo tax nga kontaan. voilà question. léegi li tax ma mooy. bés bi day fay à Paris. non léegi léegi léegi. léegi yow war ma dem lan a fay. du fay nag leen stop. ya kare amadu dolen balama da dama si da balen si bala xam naa ne ñoom ñaar ay ay xale lañ dañ si tollu def kaw weesu ka bakk mais gannaaw moom kooku de ñaaxara ñoo xewal ëpp tëll peut-être ëpp tëll boobu sa du bës bi mooy bës boobu du bës bi mooy bës activité bi xew activité bi xew mooy du doon ngóor Sénégal njaay yëpp koo wax mu ne nag mu gëmal ne du doon ngóor man moom bëgg naa mel ni ngóor bëgguma mel ni duudu moom ni Talla rek laal ma ñaax la ndawam. yow ko a góor te eh, sànni ma naa ah, yow duudoo ngóor yow yaay duud. ah ah ah, ah, ah duudoo ngóor yaay juum yaa ngi juum yaa ngi juum yaa ngi juum. duudoo kii sut duudoo sut ngóor. maa ngi nii maa gën a tuuti. <laughs> yow yaa ngi yaa ngi góor. maa ngi góor yaa ngi duud. yaa gën a kamera. Walaupun maju dulu kan nakal ya iya, iya. iya. nyuruh nyuruh nyuruh nyuruh. Sing ngambil dah udah gue pahi. Mana satu video gue no kalau mana lima puluh Waduh. Ayo dengan gande. Dulu nol dulu nol langan deh. Ngur nol nol tuh teh tegur dulu besuk. Wale dulu. Ya besuk. Ya dulu. Aduh ayo ya ya dulu. Ya dulu ayo kaji jiwa ya dulu. Ya ya dulu. Wale ini mau nama dulu. Wale me ya dulu dengan nyuruh pas kesen pakai basen pahi. Gua sama dua benda lagi so ini nalar mau guru sax dama jam jàmmi si ji dama lay jàmmi si ini seen pax yi nekk fii nii di ngeen am ay pax. yow ya de nu ma mel ak ak ak nguur man bu may ñur ñur ñur ñur ñur nguur. waaw yow ya ñur nga ko duudu yow ya tooy ñàkk nga fay da am woo ful la laal. man dama ñàkk fay la man dama ñàkk fay la. ah du nguur ah, mana la mel duudu noonu la mel. yow man ñaar dama ñàkk fay la. xoolal rek. xoolal rek. duudu de yaay yaay yaay def attends dama xew instant dama xew dama góor gën a xew gën a xew man nga ma daa fayda yow bàyyi ma léegi yaa resi si seet ba ñu dañuy dugal publicité te tey ñëw publicité bi mooy lan maanaam les jumeaux dañ organiser xew-xew bu mag day saatu de de bu day fetasu waaw day fetasu waaw xew-xew bi na mu ngi amee fële si hôtel Océan. ndeysaan le 12 juin. incha allah 1990 ba 1993 2001 ñu ngi koy organisé. fi tasul xew-xew ma am na. fi tasul fi tasul fi tasul. le 12 juin. waaw. ñu ne ñu xew la ne les deux jumeaux. ànd ak seen suñu grand frère di si ànd ak suñu grand frère waa Black Milk. di si ànd ak suñu. le Paza si ànd ak ay ndaanaan lañu. ñu organiser benn showcase fële si hôtel Océan di si àndaal la maison production le Dikilik. c'est que ñu ñaar dañ géwale xam nga moo tax dañ géwale mooy maanaam yow suñu suñu suñu loolu boobu ñu def noonu mooy suñu publicité bi. waaw c'est bon aussi publicité bi en ah, stat c'est bon ñu dawal publicité boobu noonu nga xamante ne moo di. Woo! seen seen i doomu nag ak seen i rakk ak seen xarit seen i soppe àddina ak date di wax ne xew-xew lu gën a rëy si àddina showcase ñu ne déetewaay ñu xanaa loolu xale bu ko dégg nag yaakaar naa ni nga ba kër dañ yëngu moo fam taman li ma jaaxal dari damaa gis ay ticket cinquante mille ay ticket dix c'est que gars yi al yi dañoo pare waa dëkk li dañoo pare gis nga lii du entreprise bu ndaw gars yi dañoo am doole wan ne waa Yoff ñoo fi ne te gëm naa ne ñoo fi ne ñun ñoo fi ne ah bëgg naa nag képp ko safoo Alvin ak David sopp bëgg ñu te yàlla rek a tax billet yaa ngi nii trois mille francs billet dix mille francs baa ngi nii xale yi ñoo pare am na billet ba cinquante mille ndeysaan ana moom dafa dafa sori cinquante mille baa ngi nii xam nga ñii ñi ñii ñiy lu ndaw dañ ne showcase ba pare def party piscine party si biir ndax xam naa ne xale yi moom wax dëgg yàlla sama genre yi moom ay piscine party moo ñuy arrangé rappeur yi saw kees bu ñu kenn yaaxal nag waaw billet yaa ngi ni c'est disponible képp ku bëgg si billet yi da ngay oote sama numéro téléphone da ngay def 77 775 42 30 wala nga def 78 439 84 34 boo oowee Alvin di nga ko jot boo ma oowee di nga ko jot lu am importance la képp ku bëgg a participer si li nga xamante ne moo di programme boobu da ngay def 77 775 42 30 wala nga def 78 439 84 34 wala nga def 77 388 68 23 loolu nga xamante ne moo di numéro yi nga xamante moo di numéro yi nga xamante ne moo di programme bi nga xamante ne moom la Albina David organisé. ak euh, di si àndaa suñu ndaanaan yooyu noonu nga xam ne moo di waa Black Milk ak ki nga xamante ne suñu boy la suñu xarit la muy Rapaza ak yeneen artistes yoo xamante ni ku jàpp ñu seen tour quoi mais ñu ngi leen di baax a baax a baax billets yi c'est disponible place bi c'est disponible le 12 juin képp ku bëgg a ñëw loolu noonu jàpp si te yàlla tax boo fekkee ne yaa ngi yaa ngi ñuy bëggee ñëwal invité nañ la ñu ñëw la invité Alvin invité na la David invité na la man maa invité ñëpp invité nag tamit Alsaan invité naa la na fasal sa doomu nday nekku fi na fasal bu fi nekkoon sa dañ koy fas mais fasal gannaaw fas fasuñu ka fasa nañ ka garaawul léegi yow Alsaan invité naa la invité naa tamit siyaas invité naa tamit njonlaay invité naa daal ñëpp képp koo xamante ne fii yaa ngi nekk Yoff TV bokk si membre Yoff TV di liggéey Yoff TV invité naa la sama programme seen programme la suñu bés seen bés la ñu bàyyi Alvin participer si loolu noonu. man li ma wax rek bariwul. Mhm. mooy maanaam programme bi dafa don programme bo xamantene ni hmm. Mamadou ibrahim Ndiaye ay ku katarde. ay ay ku katarde. di ngeen gis yi du doon góor. ay ay ëpp na wax je du doon góor fofu xewu fa. dafa xew xewu fa xewu fa. foofu de dafa xew. xewul fofu du doon góor waaw monsieur Gannaaru lay Mamadou Moussa subhanallah monsieur du doon góor. ay weer bés bi ngeen def senegal tax nit ñi ragal. Dan sama program saya yang nervisi duduk. dulu. Yang gore billahi kan yakal. Bulan yang gore yakal kan kan. Kamu fade. Dama lay wax ma tay. sama lay yakal ngeen. Sama ñoom yaay la lay wax ni dudung ngor xewul fofu. Dama lay tene ni ki amul lool. Fofu showcase. Paate. Paate. boo nanguwee ne yàllaay dogal gannaaw yàlla dafa dogal ñu taxaw fii yàlla dogal ba ñuy bëgg yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon mais ma ma way bu ma yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon mu defu numéro nga may waxee danga may déglu ma wayal laay ma wayal la kaay nii ma way la ndeysaan may naa la ñaari junni dafi sama doomu nday ka ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon mu def la aéritisme David bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon Mereka तुम्हाला बाहेर ठेक मसा मुंडा आम्ही करू करत वार वाला मुंडा ब्लॉक इस्तीजी वाला कपरातीजी वाला मुस्तरातीजी यो बोला याला नेकोल तमन बोला याला नेकोल बोला याला wala muda bla madar wala muda bla ay bagné signé wala yalla neexon wala yalla neexon wala yalla neexon bu wayat ko man nga nan ngay ngay Idris Tizi moo tax di muur du moralement mu weer la moralement non non bu ma waxee bu yàlla neexoon yàlla neexoon def lay weer sama doom lay sama dëkkër soo ya, tidak ni yàllay dugaan du ma sa sunu tëdd ñëw na ñëw na dama lay weer dañu la yàkkal David ñëw Wow, wow. waaw waaw Alvin ñëw na ñëw na Wow, damay wayaale sama bopp waaw ma ya bu Wow, lay waye bu ko yàlla neexoon de si Wow, bon régi Assane baax na ñu dem xoolal Wow, bu nangoon ne yàllaay dogal xam ya yàlla Wow, dogal ñu ñëw wow ya taxaw waaw yàlla Wow, ñuy bëggal askan wow ya yàlla dogal ñuy dem fu wow waaw yàlla dogal ba ñëpp dégg ñu fu ne waaw yàllaa dogal tey ba waa dëkk bi bëgg ñu. waaw yàllaa dogal monde bi bëgg ñu. waaw yàllaa dogal tey bu demee ba toogaa avant. yàllaa ko dogal waaw. bañ demee ba DGS. waaw yàllaa ko dogal. waaw ba ñu demee ba ba Sëbi Xutaan. waaw yàllaa ko dogal. waaw ba ñu demee ba Bambilor. waaw yàllaa ko dogal. waaw ba ñu mujjee ba ñu jugee bu ko dogal. yàllaa yàllaa dogal lépp. waaw dinaa kon jéenaa yow moom nga xamante ni xale bu pare nga macha allah xale bu man li ngay def. gannaaw mhm. ah, yàlla ya dogal na nga génnee son yàlla ya dogal ñu taxaw fii kon nañ koy dogalante enregistré eh, bu ñu dem xool ji bu nanguwee ne yàllay ya dogal du mësa sonu te doo est-ce eh, bon ñu daw Drill on the beat su nanguwee ni yàllay dogal du mësa sonu te doo lu mënti xew yow du la jaaxal te ñi la yaakar bu leen faale nattu du wees te léegi li des mooy nga ànd ak fulla sa life filo fi gis xamal ni bés dina jeex bu dara tax nga fe xel mu nice jangal ci sa jar jar te xoolin signifié na lu bari gëm suñu bop moo tax ñu ñëw taw fi gëm suñu bop moo tax ñu dégg ñu fu ne gëm sa bop nak moo tax ñu dégg la fu ne nga def neex merci encore une fois Dieyna man dama gëm sama bopp cek cek mu gëm sama bop ruube dafa xew kër gi gi ca gàddaa ruube dafa xew eh. yow sax lan sa problème ah? xam nga lan sa problème lan mooy sa problème dama sa problème da nga mëna contre temps non non yow li contre temps ci xam nga xam nga nu muy xam nga gars yi dañ ne dafa dafa dafa dañ dañ dañ gëj def ambiance te gars yi rek ñoo nam moon waaye léegi bu ñu bëggee def ambiance gars yi nam moon ñoo xam nga ban ngay indi ñamax ñamax yi wala ci riir yi wala caaraaraa wala. nga ba mu neex. bu ma eh, si c'est bon Russie. Alassane tey dafa bëgg plateau bi yëngatu. bomb andil ñu bomb ji waay bomb ji. ndax temps yi nañu bomb waay. parce que gàpp na dëkk réew bi jox nañ ko bopp. na nañu bomb waay di ko bomb bee ba mu neex. danaa Bastoun génn na fi bombante. bombante te bombante maanaam deewoon na. Bastoun ñëw andil di ko bombe. di ko bombe kon andil ñu bombe gi ñu bomb ko daa xale fee ca ci eh, eh, eh, riiri kaay muy jaaraara. may ma ko tuuti may ma ko hmm? ma ko tuuti. Di ba mune ya yo kanane ya dikebombe bamune lah kanane ko ko aku ko aku di ba wa wa jin saya kesebut dia begini mau ditegas yo ba mune eh ba mune eh le ma ko eh ga suma ne ni rek ne ne ni rek sepedir nga nop kon absensi saya polisi mais ñu bombante gi ñu bombante ko si plateau bi nag tey jii gannaaw dañu gisee bombante. tey faaw ñu bomba vraiment gisuñoo bombante. ñu bomba cere ji. bomba ñu bomba ñu. waaw ñu bomba cere ji. régi. waaw bomba ñu. bomba ñu cere ji. ndax tey jii stade bi moom bi sax kenn kenn kenn te man leen bombu cere ji. ah bombu ñu cere. waaw bombu naa bombu ñu cere bombu ñu cere. bombaas bomba ñu cere. yow feccal ma boo mbaas. ay ji feccal ma boo mbaas. ไอ้ที่เขาบอกแม่หมามูเนี่ยพวกอันนั้นเนี่ยที่เขาบอกมันดามาลาบึกบึกบึกบึกมิวมาลา jaral nga maman sama chéri jaral nga maam biir géej ñu fii allumet am na fii kon nan ko bëyal mu gaaw li nelaw ne ko tëbal mu gaaw parce que xam nga tàng naa li nelaw est-ce que tàng weesu na ko di dem li doon ci yow fu mu seddee xaaral ma chauffé ko gaaw birike ngi fii li nelaw birike ngi fii almet am na fii kon nan ko bayal ma gaaw li nelaw ne ko tëbal mu dëkk parce xam nga tàng naa li nelaw est-ce que tàng naa weesul di li jaral nga maaman sama chéri jaral nga maam li nelaw si yow fu mu seddee xaaral ma tàngal ko gaaw biri met am na kon ko mu gaaw li nelaw ne ko mu gaaw weesu na ko di dem li doon ci yow fu mu seddee xaaral ma chauffé ko gaaw biri kee fii allumette am na fii

weesu na ko di dem li doon nit fu mu seddee ma chauffé ko gaaw birike ngi fii allumet am fii kon ko bayal mu gaaw su ma bëggee na ko fesal mu fes chauffé ton bomba gi bomba gi bomba gi bomba gi indi ko bomba gi bomba gi a yi a tey tàng naa de instant indi ko bomba gi yaayu bébé jaañee doomu yaayu see Azina David no stress lañuy dundu eh Alvin Azina David Fo ñu fekk dañuy happy dañuy Alvin Azina David no stress lañuy dundu eh Alvin Azina David Fo ñu fekk dañuy happy dañuy re Comedy Comedy looloy comedy musical comedy, Comedy looloy comedy, musical, comedy, comedy.